baax di leen siyaare di sant yàlla ci li ngeen di toppee ci lépp li actualité rek ñu ci ànd ak yéen di santaat yàlla bu baax tey ñu ngi fii ci kër njaayloo Lo bu nit ñi nag dee xëy di rayante ji di wut luñ dundalee seen njaboot di wut luñ suturloowee ñenn ñi ñu ngi wut saa buñ xëyee luñ toroxalee doomu aadama yàlla nag bindul ku dul dee waaye bind na ku dul torox waaye ma leen di seeral ni kër Ndiaye Lo insécurité totale mi ngi fi kër Ndiaye du tey rek la ñëw ci lu mel nii ñëw naa fi bu yàggul booy kayre mbër litter ñëw nañ ba dugg biir këram di tiire ay pisale ci biir kër gi jël ay juróom ay xaru moom mu koy gis nii ñu koy dàq di ko yóbbu tey ñu ñëwaat fii ci benn jeune boo xam ne tey xale la jël li mu yaakaar jël ay dëbb-dëbbalam bañ lépp li nga xam ne moom moo xew ci li nga xam ne moom la mooy xew ci dëkk bi léegi demul ci gaal gi investir li nga xam ne moom la ko jot suñu borom joto dénk mu jëf ci benn place bu tudd xel koom xelkom xel xelkom électronique tey di fi jaay yëngu ci wàllu téléphone ak accessoire ak wàllu réparation fii ci kër Ndiaye Lo li doy waar nag mooy lii mi ngi amee fii ci kaw tali bi en face ak tali bi dara doxul diggante ak tali bi nan lañ fi mën a duggee benn heure bi dajji bunt bi cambre yore ko ba jël fi ay téléphone jël fi xaalis bu toll nii lan mooy problème bi nit ñi léegi lan mooy problème bi parce que léegi da ngay dem ba léegi sax danga nga naan est-ce que su ma tëddee sama biir nekk dinaa nekk sécurité ma bëgg ko laaj euh, yëf yi nan la ko yëgee mais ñu ngi lay masaw di ñaan suñu borom mi nga xam ne moo mën a niit mu niit ñu def lii te am nañ ci yaakaar ni ak dakaar Buzz bu duggee ni ngi yàlla dina def sutura mu niit leen waaye ñu ngi ñaan ñi def lii yàlla suñu borom weer leen yàlla na suñu borom weer ñu def leen parce que dekkuñu ay nit ñu baax te bokkuñu ci li nga xam ne ñuy développé dëkk la ku baax noo tudd. Baye Mor Lo. Baye Mor nga toll si ñaata. maa ngi am ay trent 36 ans. Baye moor place bi nga ñëw fekk ñu bi ko kañ nga bi woon place bi. Euh, c'était côté 2020. 2019 2020 laa ubbi place bi. Mhm. di jël sama mille francs ñaar dërëm fukki dërëm di taxale ba egsi fii parce que balaa ñuy sori sax di nuyu sénégalais yëpp. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di xam ni comme fi may commencé damay dégg lu bërki dem bu président di wax ni doomu réew mi nañ toog fii. mais man damaa bokk ci doomu réew mi gëm ni gëm loolu slogan boobu moom mu def quoi parce que bu fekkee dañuy doomu réew mi nañ toog fii. ñun fekkoon ñu gëm loolu ba pare ba toog fii. ba mu ko waxee wax bi nekkoon lu ñu neex tamit moom président de la république Sénégal. ba tax ñun dañoo toog ba pare toogaaleel parce que ñun dañoo toog ba pare du ñun kese fii nii li muy ndaw xam nga da nga kaa fekk mu xat seize yi cinq seize nga fi fekk cinq emploi ñooy xëy di fi di fi di daan seen doole tey jii démb ci heure bi dañoo liggéey ba wàcc dem tëddi tey bu ñu xëyee amuñ lu ñu liggéeyee parce que ñeneen ñoo ñëw jël matukaay yi ñu doon suturloo fii nii bu ko defee bu buñ dégloo bërki dem président di wax ni jeunes yi nañ bàyyi gaal gi ñuy dem di te toog liggéey réew mi mu nekk lu ñu neex parce que ñoom ci lañ ci lañ nekkoon waaye tey jii am nañ naqar bu bu toll ni président bi muy wax loolu ñun ñuy am courage liggéey comme comme comme ñëpp toog am na koo xam ne moom mi ngi xaar ñii li ñu liggéey bu ñu commencé li ñu defoon lépp moom mu ñëw yàq ko lu ñaaw la lu metti la wallaahi lancim maanaam bu ma la waxee ni la bu ma la wanee fii te bu ma paree naa la envoyé vidéo yi avant nga xool fii li fi nekkoon tey ji boo ñëwee fekk niñ ko def da ngay xam ne ñii nii ñu bon lañ maanaam réew mi liñ ci war a njëkk a jóg mooy fexe ba ku am alal investir ko ñu sàmmal la ko fexe ba koo demee tëdd doo xalaat ni tey jii lañ lay rey parce que la preuve mooy bërki moo jaay Pikine li nga fa gis noonu mën naa arrivé ku nekk parce que booy tëdd sa xel du daal si yow wala du daal sa njaboot léegi nag lii la ñun dañoo am alal joo xam ne mënuñ ko yanu di ko di dem ak moom c'est dangereux nga wàcc jël somu xaalis yooyu di dox ak moom moo gën a bon nga bàyyi ko fii léegi dañoo foogoon ni buñ ko maanaam buñ ko buñ ko bàyyee fii wutal ko sécurité mën naa am ñu mucc ba tax ñu dem jënd coffre bi rek 650 coffre bi maa ngi ko jëndee 650 mille ngi dool si nga ko nii 400 kilos 400 kilos la coffre bii nii tëj ko dem ñoom biñ ñëwee dajji place bi ñëwaat dajji ko ci boo xoolee minutes yi ñu ko def nga xam ne ñii tàmm nañ ko def kon ñi nekkul man lañ njëkk a lor ñi ngi lool sénégalais yu bari te nga xam ne ñoo yor réew mi war nañ cee dimbali ngir yàlla maanaam ñun ñëwuñ fii di wax benn wax bu ñàkk teggin parce que yarañ ñu ko lii lañ ñu yaree liggéey jaamu yàlla te ci la ñuy nekk te ci la ñuy faatoo ñi ngi ñaan président de la République du Sénégal mu dimbali ñu bañ ba ba ba bu buñ góorgóorluwaatee ba egsi waat fii bu demee waat nii. d'accord mais li ma bëgg xam mooy mooy ban heure la nga njort ni moom doon dajji place. parce que man sama benn xarit moom moo moo moo moo nekk fii tailleur wàcc guddi gi fanaanee ñëw wàcc di dem ñoom ñu tiir ñoom ñu tiimale ko bala ñu tiimale ko pistolet ñu ko bu boo ñëwee nangam ñu nangam sa maanaam sa waajur léegi nag kooku daal di lu tax ngeen may wax loolu rek ñu kii ko moom mu daw dem yee pap Pape mu ne ko man aw ma numéro Baye Mor wuyeel parce que ñoom côté place am lañ nekk Pape woo ma ni ma allo Baye Mor ma mu sonné ma ne mu ne allo Baye Mor daa mel ni kii ne nee na daam ñu nekk sa côté place li a def mooy damaa xool sama caméra fekk porte bi tijjeeku ma xam ne ñoom def nañ li ñuy def pare si ma ñëwee laa xool fii gis ni dajj nañ jël nañ xaalis bi fi nekkoon lu toll ci kenn xamul lu mu toll maanaam kuy def transfert d'argent bu xëyee ki toog fii day am som bu muy jor ki toog fii dafa am som som bu muy gis nga lii machine pour compter xaalis la xam nga bu ñu demee ba teg machine xam nga ni fii xaalis moo fi jaar lii tegaluñ ko fi 100000 wala wala 200000 wala 300000 lii ay millions moo tax ñu ko teg ko fii pour di compter xaalis ñii dëkk ci dëkk bi mën nañ maa doy seede somme bu mag ku ko bëgg a retiré danaan xaar ma dem ci loo soo ñëwee fii da nga koy am ni nga ko bëggee kon ñun li li président de la bëggoon ñun ñu ngi waaye gis nga jafkatu ñaawte fi nit ñu def nii dañoo yaakaar ne ñoom rek ñoo ci am saafara muy président de la République ak premier ministre monsieur Ousmane Sonko ñu ngi leen di sàkkuwaat ndimbal parce que lii dafa metti démb ñu ngi ñu bàyyi woon ñu nekk suñu jàmm nekk ñoo xam ne ay chef d'entreprise am courage mais tey jii dañoo découragé totalement boo xoolee fii niñ ko def xam ni. d'accord mais bu euh, euh, du du découragé te taalibe Sëñ Tuubaa nga te lu ne mën nga ko amaat. te lii mën nañ jàpp ne sax lu lay yàqal la fekk lu lay defar la sax ak defaru la parce que gis nañ caar gi ci yow ak dal gi ak ngëm gi. waaye tey euh, boo ma doon xaymaal tey ci wàllu li ñu fi jël ci xéewal ca papar ñaat lay tool waa daanaka du ma ci mën a kii nag bu baax parce que su ma envoyé vidéo yow peut-être di nga mën a xamal sa bopp nii li ñu fa jël bëri na parce que démb rek gendarme wax ñaata la man ma ma ma tëlee li bëri na torop li ñu la jël li bëri na te yow yaakaar naa boo seetaanaatee vidéo ngay seetaan ci même place bi nga ko fekk te tey bi nga ñëwaatee fekkoo ko fi. lu jëm ci wàllu ay téléphone ndax dañ fi jël ay téléphone yu bari man mënumaa xam ñaata la toll bu ma la wanee vidéo yi nga xam ne moo nekkoon fii di nga xam ne liñ fi jël bari na yow yaa koy waxal sa loolu du jar sax nga may posé question yow yaay demaat ni leen kii liñ ko jëlal kenn xamul nu mu toll. incha allah Kër Ndiaye loo bari dégg lii ci insécurité bari na fi luñ ko fiy dégg parce que ñëw naa budul budul budul budul jëw naa fi ñëwati fii te lu mel nii dafay am te souvent ñoom bu ñu ñëw dañuy armé wu yor ay fetal songu leen ba boo riposté sa bakkan mën na cee des lan mooy problème Kër Ndiaye Lo sécurité bi moo doyul wala ñi fi def loolu dañoo jàpp ne buñ fi duggee mën na def li ñu def te génn kenn ñu leen toog waaw c'est vrai ah sécurité moom moom mën nañu wax ni amul Kër Ndiaye Lo mën nañu wax ni amu fi parce que boo xoolee bu minuit jotee rek yow man su ma masaana guddee rombaat fii damay xam ne fii nii ma nekk nii amul sécurité ñun dañu fee toog rek di xaar yàlla te yàlla nag moom ku ko ku koy xaar boo xaddiwul dina la dina ma sa ñëw mais li may bëgg a wax rek mooy man lii ñëw def nii c'est pas la fois. defoon nañ ko bañ def ko revue de presse def lépp wane ni maanaam Kër Ndiaye dañ faa daaj benn place bu ñu demee si internet fekk ko fa. boobu daaj bu gën ñaaw bi lañ ma defoon. léegi man mii même bàyyi ma. tey ji lan la mës a daaj tey lañ a daaj daaneel nañ samay porte jël lépp lu nekkoon sama place dem. booba ñoom Sonko faloguñ fii ci réew mi waaye courage bii ñu wax keroog li tax ma kontaan ci mooy man dama kaa wutaat samay fukki dara samay ñaar dërëm ba tey mu toll ci millions yu bari ñu ñëwaat defaat lu gën a ñaaw mooy bàyyiwuñ fi dara maanaam démb bu ma nekkoon millionnaire tey yoruma dara te damaa yoru ñoo xam ne ay njaboot di leen dundal yor ay emploi te emploi yooyu noonu samay nawle lañ loolu ñu si ñu fi yaakaaree nii ni nga xeebu ma ko de man bu weer bi dee ma jox leen ko dama damay damay am contentement du li may gañ a kese moo tax nit ñi gis-gis yi wuute parce que na koo xam ne li muy gis rek mooy que man malaa kee dafay kii gis ni Baye lii fekk Baye Mor naa am li muy daw suba ngoon kenn ki nga xam ne nii yaakaar na fi dépense suba bon café am bokk na ci li tax may gën a son wallaahi lan te lu ma gëm laay wax parce que bu dee man ak man neexoon ma dem def ñoom ni ñoom am naa doole su ma entraîné tuuti mën a agressé mën a def leen bu ma entraîné tuuti a def leneen bu ma neexee dem dugg ci gaal comme ñëpp bu ma dem waaye ma toog fii di liggéey jëmmal sama réew te lu ma gëm laay wax le bi damaa waroon ànd ak sama benn waay dem voyage dem dem jënd ji ay téléphone xaalis ba ma waroon jënd téléphone ci bii lañ koy fekk jël ko fi may jaay téléphone ci boo demee Kër Massar ñi fay dàq jaay téléphone nañ bàyyi ma waruloo soo demee Dakar ñëpp xam nañ ba ñëpp xam nañ ma maanaam ñi ñi ma seqal mbir mi ñëpp xam nañ ma xam nañ ne man du ay waxu caaxaan la lundi prochain damaa waroon dem voyage xaalis boobu mu waroon dem jënd ji ay bagage ñëw économie Sénégal dox si ma fay dédouanement def lépp ñëwaat jaay ko gañe ci samay emploi xam gis seen bopp tey xaalis boobu yóbbu nañ ko transfert d'argent sax ñu ko doon yaakaar ci man tey ji mënuñ ko am parce que man am mënumaa maanaam mënumaa tey nga wax la ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy sécurité ñooy ñooy ñooy wàllu yoon ñu gën laa dimbali ndax dem nga police déclaré waaw def nañ lépp police ci boppam moom moo ñëw na fi police scientifique ñëw na brigade de recherche ñëw nañ commandant macha allah ñu leen di gërëm tamit ci teewaay parce que tamit wax dëgg yàlla tey bi ma wootee tooguma temps lu mu ndaw rek ñoom egsi nañ ñëpp di leen gërëm di leen gërëm commanda Cissé maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax commanda Diallo bi nekk Tëngéej moom it daw na ñëw ñoom ñëpp def nañ li ñu war a def wax dëgg yàlla loolu rek laa la xam ni mën naa ko wax dëgg rek yàlla moo ko moom parce que li def nañ li mu waroon def mais li ma laa koy wax mu ñëw dimbali ñu jeunesse bi nga xam ne pare wuñ ba tey jii li muy métti métti pare ma pour génn fenn fii rek lañ am te fii ñu ma lay wax ni fi lañ am boo xoolee li fi nekkoon ba tax ñu koy naw nekkatu fi moom kon ndimbal gi ci moom lañ ko yaakaaree na ñëw jàppalewaat doomu réewam ñu jéem a rebondir jóge ci détail bi ñu nekk dem fu sori parce que tey duñ découragé de bu ñëwee tey lañ ci gën a nekk bu ñëwul tey lañ ci gën a nekk kon nag bu ñu koy woo dañuy xam ne doomu réewam la nekk jàmbaar te li may wax même bu ma waxuloon ñeneen wax sax di nga dégg lii ma lay wax man jàmbaar laa du ma daw te du ma daay te lii laa gëm ci laa yor sama famille samay emploi si yaakaar keneen ak keneen ci lañ yaakaar ci laa fas yéene am lépp moo tax ndimbal la ñuy sàkku si ñoom président de la république monsieur Ousmane Sonko ñu ngi leen ñaan di leen ñaanaat encore une fois ngeen ñëw jàppale doomu réew bi parce que ñun lii effort yi ñuy def yëpp kenn day ñëw def ko 5 ans dajale 5 ans pour kenn di am yaakaar ci yow sax kenn ñëw ci 30 minutes mu yóbbu ko metti na te ñu ngi koy ñaawlu waaye di leen ci yaakaar tamit ginnaaw bi ñu ci yaakaaree yàlla parce que yàlla moom amul luy sotti te du ko sottil ñu ngi ciy yaakaar yàlla waaw di leen ci woo nag bu baax di xam ni ñoom rek ñoo ci a jàpp parce que lii li ci laxasu bëri na am na ñoo xam man lañ wóolu man sama personne lañ wóolu seen ay millions jox ma ko loolu dem na ci lii am na yoo man sama man sama personne la ñu wóolu ba bu ñuy dénkaane xaalis si man la loolu dem na ci lii te loolu li may wax man am na ñu ko seede fii su leen neexul léegi bu ginnaaw subaa mën ngeen a ñëwaat fii am ku may fayee ko lu ma ko nag fi ne nii moom li ma yoroon dem na te doomu réew mi insécurité moo tax mu dem maa ngi sàkkuwaat ci ñoom ndimbal ñu ñëw jàppale ma ma góorgóorlu liggéey mu jëm ci kaw. d'accord mi ngi sàkkuwaat ndimbal ma ci lancer un appel son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nañ ne bi nga tàbbee ci réew mi ba léegi lépp loo xam ne rek luy injustice la yaa ngi ciy taxaw képp ku def ak ñaawteef balaa def 48 heures police liggéey ci liggéey bu mu ci war a liggéey ñu jàppale kon ñi ngi ñaanaat liggéey bi nga xamante ne tey euh, yoon war na ko cee liggéey ñu ngi ko ciy ñaan di féliciter tam sunu yoon justice gis nañ liggéey bu intense bi ngeen di liggéey nii a ngi def ñiy def a ngi def faay yéen ngi liggéey yéen lu nit def ci ñaaw ñaawteef balaa def 48 heures ngeen teg ñooñu loxo ñi ngi ñaan ñiy def lii yàlla na suñu borom weer leen ñi def ñi yàlla suñu borom weer leen te wóolu nañ justice di talalaat loxo son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay mu gën a bàyyi xel ñi nga xam ne ay góorgóorlu lañ dégg li mu wax fekkoon ñu nekk ci doon góorgóorlu di wut juróom ay ñetti di yokkal ma jaala ba investir lu mel nii tey kii bu fekkoon tey amul yenn ngëm-ngëm yi mën naa décourager donte nag donc donc bi mu nekkee ab murit ba pare doon ab jullit gëm ni li mu amoon war na ko mën a amaat mais nag yàlla gis na lépp yàlla mi mën a weer te mën a leeral yàlla yàlla leeral lii yow ñaaw teef bi jóg di xool gor liggéey ba dajale ay ñaxam denc ko ngir ji jëriñ ay doomu aadama nga jóg pour toroxal ko maa ngi ñaan ci barke weeru gàmm gi billaahi la laa ilaaha huwa yàlla na suñu borom weer lan ngeen génn yéen ñëpp ni bëccëg suñu leen jàppee nag liñ war yoon def ko tam ànd ak mesure sévère lan ngay tàggoo ginnaaw bi ñu masoo parce que man actuellement dama laa xaw a ñeewantu barke sëñ Tuubaa parce que bëgguma nit bu am problème rawatina ngay xale ba pare daj lu mel nii oyof na macha allah oyof na si ñun tool nag comme li ma waxoon rek su ma delluwaatee ñi nga xam ne bu ñu xëyoon ñoom fii la ñëw ku nekk jël sa sees toog di xaar loo fi am foofu la may xaw a kii mais bu dee man oyof na toll ci man li ma waxoon laay waxaat rek sant nañ ñëpp di ñaanaat ki nga xam ne moom la yàlla dénk réew mi moom nga xam ne suñu responsabilité yëpp moom ci moom la ko nekk ci dogal yàlla bi mu ñëw jàppalewaat ci li entreprise bi demaat ci kanam parce que ñun duñ tàyyi dañuy liggéey rek dafa si ñoo génn réew mi man bëgguma dem fenn am fa 10 fu ma mën a dem ci àddunaam su ma fa amee 10 jours damay dem jënd bagage ñëwaat kon liggéey lañ gëm ñëw jàppale ñu liggéey loolu la di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di wax ni voilà naqar bi moom ñëpp rek ñu ngi ñu ngi leen koy masaw ñoom tamit parce que fii gis naa fi ñuy ñëw gis nga bi ngay ñëw maire di jooy fii waaw waaw waaw waaw ñooñu ñu ngi leen koy masaw parce que man man mi mu dal man mënuma ñoom ñi mu jaral jooy xam naa ne ñoom ñoom ñoo gën a yëg si seen xol quoi waaw vraiment tey sant mënoon na gën a métti mënoon na la fekk tey dab la ray la wala ñu dab la ngay ñibbi ñu dab ray la to yëpp bakk na gën a fort te yaa rek moment bi ñuy wax am na ñu ñuy dugal ci turwaal yi di leen gracé am na ñoo xam ne dañoo ñëw jël seen alal rey leen man ak sama alal lañ jël te alal bi yàlla may na ma kàttan dara jotu ma mën naa ko amaat waaye sàkku ndimbal rek ko metti na nga dajale ba heure bi ñu def ko nii buñ ma dimbalee ma gaaw demaat buñ ma dimbali wul ma nekk si li ma nekkoon rek ñu ngi leen ciy woon nag jërëjëf kontaan na merci jërëjëf yàlla yàlla